démb dañu ñëw sebigar taxaw fa di wax suñuy euh, suñu naqar li ñu si bëgg a def gendarmerie fekk ñu fa dugal ñu seen biir oto mat nañ nag euh, ñaar fukki nit ak juróom si biir ñaar fukki nit ak juróom yi am na ay mag am na ay jigéen am na sa koo xam ne moo mook doomam ñoo nekk ci biir li metti na li ñaaw na te dañu jël tas leen ci ay brigade gendarmerie

tant que fayuñu ñun liñu war ñun suñu kër yi duñ fa joggé nous avons dara dañu ni suñu camarades impacté brigade na tax ñu les bras duñ parce que fi nek sacc fenn loco, njublag ngoko té ñu liñu demander moy Ablaye Balde bi nga nañ tout récemment mu recevoir ñu ñu wax nga xew liñ ciy wax la libération de ces gens-là le plus rapidement possible loolu moom duñ ci sax xaar léegi léegi buñ paree réunion dinañ dem ci gendarmerie ba buñ demee dinañ fisciser wax ni nga xamné tay ji jappé nañ ko njabot yoy parce que ñooñu ay sénégalais lañ ñu liggéey ba ba réussir sen sa aduna état bi amul lu muy def ci projet bu melni mu leen di dem di tëj kaso te musu ñu teg sen tank ci kasso amana planifié won nañ ben plan d'action ba nga xamné ñu ko tuddé tourner d'expression radicale te kenn ñu tere duñu yëg ci terre tëj ci biir terre bi koy nous dañuy appeler à tous les impactés du du tracé du terre à ce que ñu ñëw rejoindre ñu def réunion bu mag japp benn jour yéeg ci terre bi wone le monde que Macky Sall ak son gouvernement ni ñuy traité sen askan. on va continuer notre plan d'action s'il insiste nous n'excluons pas de politiser ce ce ce combat on va appeler les dangers de l'opposition les activistes ce qu'on a toujours exclu. 嗯。